moom la ñuy jox mu wax ci turu Daaru Tansil kon sëriñ Xaadim mën naa jege si ngir jël kàddu gi xam ne mooy eh, kàddu daara ji li lépp mënoon naa bañ am waaye moo tànnal boppam sëriñ Abul Baraka jox ko ndigal keroog ba mu ko joxee ndigal sëriñ Bachiru la woo wax ko ne damaa bëgg Abul Baraka naafi la jëfee ca Masaalik ba sëriñ Bachiru ci taalibeem ba mu woo Abul Baraka mii daf koo wax ne ko demal wuy ji sëriñ Muntaxa ca jaar si ci man ca bu la waxee lam lay wax ba noppi bul jaarewaat sa kër waaw ah, loolu la ko wax demal wujji ko ca bul jaar si ci man ca bu la waxee lam lay wax ba noppi bul jaarewaat sa kër na nga na nga jawali fa mu la yebal loolu kon moom mooy kon ñoo ngi koy ñaanal bu baax eh, li sëñ bi doon wax sànq rek yàlla wane kiimaan ci ak dundam bi mm, barkat Cheikh Xadim radiyallahu anhu bismillahi arrahmani arrahim وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci bis bi di leen massawu ci diggante yi ngeen jànkoonteel ba egsi ak toogaay bu yàgg bi waaye xam na ne alquran moo leen ko jaral waaye du sama jëmm ndax bu doon leneen lay woote lu dul alquran lu mel ni kundung kundung wala yenn yaakaar naa yéen ñi fi nekk yépp du ngeen fa ñëw kon alquran a leen yëkkati moo tax ngeen jël taxi ñii jël seeni oto ñii def ay pexe ba ñëw ànd ak di joxe ay barkeelu loolu alquran mi tax ngeen def ko suñ borom mi ko wàcc yàlla na leen fay te nu yiw am naa mbégte lool ci jataay bi jàpp naa ne musuma am mbégte mu toll ni mu tey mi ndax yu baree bari li may njëkk a wax rek mooy sabab bi tax ma woote mag ñi dañ ne maarifatu l asbaab muinatun ala tawil mbir moo xam lu ko waral boo daan boo demee boo demee nangam ba nga xamee lu ko waral boo demee boo demee amatul day daal di leer fa yow li ko waral suñu sëriñ bii toog di suñu doomu sëriñ abul baraka dafee jaarandoog ay moroomam yu bari bin mujjee xam li fi taree alxuraan te am seen mu wóor ñu ne dañoo mokkal waxuñu ko wàcc waxuñu ko fer ijji waaye matoon na ñetti téeméer ñoo xam ne yàlla dogal na mokkale nañu fi muy kenn ca ñoom sëñ Makodde mii doon wax ci tur way juri gone yi xam naa daa jël boppam ndax ab taawam moog maam jaara mee ñoo bokkoon di jàng ci man la jàng bu wàcc alxuraan tey sage-femme d'État mi ngi hôpital di liggéey yàlla dogal na ñoom ñaar soxna yooyu ku ci ne say njaboot andi nga ko ci daara ji loolu cant gu rëy la ci noonu waaye bu may ñëw ci bis bi ak yim làmboo yépp dañuy njëkk a jagleel cheikh Mouhamadul Muntaka ñaan ak sargal ak ziyaare ak nuyo te dañ ko koy booleeg cheikh Mouhamadul Bachir moom cheikh Mouhamad Fadil li tax ñu man ko koo booleeg moom nag ñoom ñaar dañoo yàgg sëriñ bi wax ma ba tàyyi ni ñu deme ndax cheikh Mouhamadul Bachir dañ koo joxoon turandoom mu di fa jàng waaye mu di ko tërbiya ndax ku mënoon a tërbiya la sëñ Bachir wax na ma ne. bi mu defee ab diir sëñ Bachiru def ko ne demal ca sëñ Habibu jàng fa risaala te ñëwaat ndax Cheikh Mouhamadul Habib mën nañ ne murit gépp ci lañ jàng wala ñu mujj ñëpp ndax sëñ Cheikh Gaynde Fatma la ca tàmbalee ba ci Cheikh bu Ahad ba ci ñoo ñëpp ci moom lañ jànge yaakaar naa ñu ndaw ñi ñenn ñi mel ni man sax ci ñi mujj ñi fa mujj jaar lañ bokk mu dem jàng fa risaala ba noppi doog a delluwaat ci sëñ Bachiru moom xëy na moo xam la tax mu def loola siwaat kon damaa bëgg a wax seen diggante yàgg nga bi sëriñ bi nekkee xalifa yi da ko woo ko loolu sëñ Bachiru ma ko nettali ne ko yow kat ci kër sëñ Bachiru nga bokk kon nag ñëwal ci sama wet lépp lu may def ñoo koy bokk moo tax ma boole leen nuyo bi ziyaar bi ñaan bi ak ndokkeel bi waaye maa ngi koy teg ci loxol suñu sëriñ muy cheikh Mouhamadul Moustapha mii di taawam ak rakkam yi nga xam ne ñoom la àndal muy soxna maam Xawa mi fi jóge léegi ak euh, Cheikh Mohamad Fadil mi ak ñi fi nekk ñëpp ak bokki taalibe yëpp ginnaaw Bachir kero bi may sañc daara ji daara ji ñu ngi ko samp décembre 1995 kon tey yaakaar naa ñaar fukki at ak juróom wala juróom-ñaar mën na am dana ko jege ma dem jël kër di fay weer wu jot fukki junni dem lal fa sama basang man kese maay donga bi may sëriñ bi mu waxtaan ak seen soxna muy war a menace di setal kër gi di togg as togg ma am ñaari fan ñetti fan ayu bis am benn donga sëñ Modou Sylla Bois mii jiite parents d'élèves yi indi fa doomam tey jii ma nga yore ab liggéey macha allah di ko taxawu ca baayam biñ tegaatee ay fan sëñ Bachiru ma dem leeral ko ubbi nañ daara daara ji nag li tax nu ubbi ko benn sabab kepp la booy mab mabdaul xidma ab murit liggéey mooy principe ma ne ko sëriñ bu mag bi bu fi nekkoon ci zahir kenn du ma fa njëkk waaye ginnaaw ci zahir nekku fi téere bi ko gënaloon lépp te yàlla am lu ma ci may damaa bëgg a toog loolu di sama tarbiya di sama liggéey ma di la ko seereel mu ne ma jàpp ci rek te wéy dana baax am naa sama ndoom soo xam ne sama mag laa ko tudde abul baraka danaa ko indi nga liggéeyal ci sëriñ bi bu ne maa danaa ko indi nga liggéeyal ci sëriñ bi daal di koy indi sëñ aboo toogul ñeenti at daal di mokkal alxuraan ba bind ay kaamil ba jàng fi xam-xam ki fi toogal sëñ Touba woo ko ne ko demal Masaalik jiiteel ma fa jumaa ja kon la ma sëñ Bas waxoon ne liggéeyal ci sëñ bi loolee laa yëg moo tax ma woote woote bi du leneen principe boobu kese la kon nag sëñ Abo it am na dañoo nuroole danoo bokk lu bari itam nag. bi mu demee ba jàngi keer ba si ba fii mu ne it lu muy def jàpp naa ne kenn duma ko njëkk a yëg wala du ci ñàkk a diisoog man bi may wax ne Cheikh Mouhamadul Bachir da koo jox ñaari pàkk mu bëgg faa jàngale alxuraan fekk am na fu mu nekkoon dama bëgg a dem jël sama yëfi bopp ma nekk ko loolu moom d'accord naa ci li ma lay wax mooy bu daan mbaar nga fay def sax def fa sa mbaar sa maam dana la fa fekk ak barkeb alxuraan mu dem Niger gen leen benn pàkk bi daara benn bi dëkkukaayu njaboot gi lam fa cokk-cokkal guddi gam fa fanaan yóbbu fa ay benn benn donga guddi gam fa fanaan amul bunt bu ko tëj bu ab xaj ñëwee dugg bu am xar ñëwee dugg mu fanaan fa kon na ma defoon man maa ko taneel ndax man kër gi moom doon na tëje waaye nag moom yóbbaale na ñetti donga ak ñeent man ak basang maag moom maay donga bi di sëriñ bi waaye tey boo demee bu amee junneem defu birig bu amee dara xëy na boo demee boo jaaree fi jàll waaye boo jaaree fële am lu la téye loolee nag mbokk yi su ma sañoon su ma sañoon man mii di luye de maa ngi fay bu weer dee bu may wonk di fay danaa fay waaye moom mais fa mu nekk bu ngelaw li ñëwee dugg nga xam ne dafa defal xale yi mbaar moo xam ne macha allah baax na waaye mbaarum gattax wala kirtinig la jàpp naa ne muy man muy keneen moonu gën a yey ci mu am daara joo xam ne day tolloo ak dayo bi mu am day tolloo ak dayo dëkk ba bu nekk loolu maa ngi koy sàkku di ko seereel mbooleem jullit yépp di sant nag ci jeexal ñi fi teew bàyyiwuma ci kenn lii nag euh, sëriñ euh, alxaaji junj na ko léegi alxaaji Modou Mbaye bërki démb ànd nañ man ak moom ak sëñ ma Makodde mee sëñ Abdou Xumma mee toog sëñ Modou Silla Boa euh, ak sëriñ Moustapha mii di taawu sëriñ Bachir moo jiite délégation bi ndax lu ma bëggoon a wax ak sëriñ Muntaka te jàpp ne mënta ñàkk ma ànd ak ñu mel ni ñoom ma tànn leen ñu ànd ban demee ñu wax ko lan ko wax mu wax ju lam ñu wax kon maa ngi leen di sant di sant mboolem ku fi sa doom nekk ak koo xam ne ni alquran moo la neex nga ñëw wuy suñu way juri gone yi nag awma seen fay seen taxawaay rafetaay bi macha allah ku ñëw ci daara ji boo santee noonee mel ni borom mbaxane mu ñuul moomee ca sama wet boo fi ñëwee danga xam ne daara ji bari na kër yoo xam ne koor gi moom bu ma sañoon euh, sama mbokk daal di sëñ Fallou Seck da ngeen ñuy gane si ci koor gi waaw ndax xam naa ne ngeen xool ba xam sun daara ja ne woon ca njaare moog bii bu dàq kon bàyyiwuma kenn lum gudd gudd eh, liñ naan waxtaanu pël moom ah, du weesu nag a baax kon nag alxuraan rek maa ngi nuyu mbokk yépp waaye nag ci jeexal bi ki ma war a njëkke muy sama yaay soxna Faati Gay ma nga nee toog ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar yaakaar naa xolam sedd na ndax moom alxuraan rek la bëgg yaayi daara la woon suñu wayjur yoroon daara muy nekk ca teen ba di root du guddeeg bëccëg ne ca donga ya ba tey yàlla dogal na kon maami daara la kon yàlla na yàgg mu ngoog sëriñ Abo mii ba mu jaaree kër sëñ Bay Géey moom mii moo fa moo ko yoroon waaw kon euh, alhamdulilah jazakumullah anna jërëjëf sëriñ Xaadim ci kàddu yooyu mel ne ne tënku na waaye leeral na leeral na daara ji ay jaar-jaaram waaye loral na it nag solos jotaay bi dëgg-dëgg mooy li ma doon wax rek ne sant yàlla rek la mooy ginnaaw dañ koo joxoon sëñ Abdul Baraka ne ko lii yéen ci Cheikh Khadim radiyallahu anhu dem ba ki fi nekk sëriñ Touba radiyallahu anhu euh, jël ko jox ko liggéey bu ràññiku bii xoli ñëpp sedd ci kon moom mii yàlla jaarale woon dara ci loolu ci moom war na cee feeñal ak santam yàlla kon loolu moom mooy solos jotaay bi kon sëriñ Moustapha ñu jëlal kii bi jox ko sëñ Moustapha mu joxal ñu ko sëñ Abo niñ def amee nit ñaa ngi ñëw nag ca ginnaaw ñu nañ def ndànk tuut ginnaaw dañoo am lu ñu bëgg a boole sëñ Xaadim nga jëbbalaale leen ko waaw bismillah nañ ko nañ ko kii bi sëñ Xaadim yóbbaale yóbbaale leen ko képp koo xam ne am na loo loo fas yéene jox sëñ Abo rek mën na koo indi nii incha allah taala sëñ Xaadim joxewaale la ko mën na koo indi nii sëñ Xaadim joxewaale la ko ñuy sàkku sëñ Makoddi Njaay mu jege si ci turu paanale yi moom moo jël ak turu daara yëpp rek paanale yeeg dong daara yeeg jàngalekat yeeg ñëpp rek waaw barakallah masha allah yal na yàlla nangu lépp kon sëriñ Makoddi mën naa jege si jël di ci des ci turu daara ji parent def yeeg dongo yeeg jàngalekat yëpp joxoon nañu ko sëriñ Abdou Baraka macha allah kon mbokk yi ñëpp gis ngeen kàddu ba am solo boobu ah ñi ci ginnaaw nee nañ ñu xool ko dañu ñi ci ginnaaw nee nañ ñu xool ko waaw macha allah ah, ah macha allah yi de moom yi de moom mooy mooy waaji ne moom <laughs> ay taxawaay yu am solo yu ak jàppalante Serigne Khadim ci daara ji kon macha allah nee na ngeen fotowaat sëñ bi kee nee na ngeen fotowaat de suñu borom photographe nee na nga fotowaat waaw. loolu sedd na lool. kon de incha allah taala xam naa suñ suñ suñ xaarim joxaale ko addiyam ji kon li mbokk yi jot a joxe addi bi boobu macha allah ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم